ko euh, tuddeeti monsieur le président moom loolu la wax nee na Macky Sall moom du déggati monsieur le président mukk après le 2 avril ndax xamuñu ginnaaw boobu it nan la mbir yi di euh, tëddee mu mel ni du moom rek ki nga xamante ne également mooy Amidou Thiam moom nag la muy laajte mooy ndax ginnaaw le 2 avril ndax euh, président bu assemblée nationale ndax mooy wéy di jiite réew mi am déet lan moo nar a am muy ay laaj yu bëri yoo xam te ne en tout cas am na autour n'est-ce de cette question liée au, au, au report Ndeye Aram Touré bien entendu dégg nañ ay réaction moo xam ci Fall moo xam ki nga xam mooy Thierno Alassane Sall également. te xëy na Khalifa Ababacar ah, ak ñeneen te yemu ci parce que même de delà de nos frontières ki nga xam te ne mooy Omar Sissoko Embalo li nga xam moo jiite. Euh, euh, Guinée Bissau également moom it félicité na président Macky Sall ci euh, li mu jàpp ni décision bu bu am solo la jël ci tolluwaay wi nii ci li nga xam te ne moo aju ci élection yi du ñàkk nag. xëy na dinañ ci ñëw Union européenne ak taxawaayam ñoom ña nga doon euh, lawal seeni nit en trente-deux superviseurs la wax ci quatorze régions yi euh, yooyu yëpp tegaat fi campagne bi la ñu jotoon enregistré waroon tàmbali ëllëg ak i taxawaay bi nga xam te dinañ ko xaar ci ku jege ci ay réaction Ndeye Arame Touré. jërëjëf alors euh, Siré dégg nga Pape Ousmane round bi ñu defal ci. réaction yi de part et d'autre en tout cas yi nga xam nente jot nañ ko euh, nemmeeku ci bés bi gannaaw euh, président Macky Sall ba mu yëkkee kàddu ba ba noppi euh, ci li ñu jëm ni gannaaw li nga xam ni teg na ko lan nga gis ni Sénégal ci yan lendemain la jëm on va vers vers peut-être l'incertitude la la grosse incertitude xam nga fan yi dama doon leen tooñ ne leen kaale ñu ñibbi Saaraba waaw ndax Saaraba moom rabu àll bu ne amoon na fa taxawaay may ma sañ-sañoo dénk ma sañ-sañee jox ma sañ-sañoo ba may sañ di sañale Macky Sall nag tey moom daa sañ-sañale eh, lii xew tey dafa ma inspiré ñaari affaire d'abord premier bi c'est le livre de Henri Lopez le le Pleurer de Henri Lopez 1982 où ci tram bi benn ancien combattant devenu président à la faveur d'un coup d'état euh, dem ba mujj gi soppaliku dem ba doon ab dictateur euh, mais soo au-delà de Pleurer Parce qu'effectivement, il faut aussi rire de la vie quelque part. Et je ne peux pas ne pas penser à la chanson de Daoud Koné, Daoud le sentimental. Que faut-il faire Oh, que faut-il dire Anna Gouye. Maintenant, la femme de mon patron, je veux dire. Si je dis oui, il y a des conséquences. Si je dis non, il y a des conséquences. Les quoi faire Pour moi, on est en train de passer vers un glissement qui pourrait être juridico-politique euh, su fekkee dañu ko doon wax monsieur le président Macky Sall là peut-être on dans la République. oui maintenant est-ce que ne glisse pas est-ce que désormais il faudrait plus l'appeler euh, Macky Sall mais l'appeler Bourguédé euh, Lamtoro Bourguédé parce que peut-être c'est vers ça euh, nañu jum xam nga wolof yi dañu lay wax euh, dafa am gan am gan am gun ñun nag dafa mel ni foofu nañ jaar ak président Macky Sall ñu ngi ci état bu gun. muy la xam nga gan buy ñëw day yëglu. Hmm. nee na dinaa ñëw sa kër su ma fa ñëwee danaa fa def ñetti fan bu ñetti fan yi jotee mu dem nga waajal ko mu ñëw mu dem gan nag moom buy ñëw du la wax mi ngi ñëw. da lay bett mais quand bu ñëwee dana la wax kañ lay ñibbi mais gung nag moom. Hmm. buy ñëw du wax kañ lay ñëw te bu ñëwee du la wax kañ lay ñibbi <laughs> te buy ñëw dee indiwaale wëlisam daal di ñëw nag. ñëw toog daal di ñëw nag toog doo xam dara euh, dara ci man mais man euh, duma ko sax analyser ci côté. Euh, juridique ah parce que loolu dinaa ko bàyyi ak Cheikh Omar. Hmm. mais man côté politique laay wax. Hmm. c'est-à-dire que tey Sonko li mu doon wax yëpp. Hmm. feeñ na tey ndax Sonko dafa mosoon a wax ñaari affaire pour man ñaari affaire yooyu moo firnde tey jii di jii. muy dafa mosoon a wax Macky Sall président Macky Sall soo ma bëggee rey. sa loxo dina takk deret mais boobu c'était dans la symbolique du rey ak yooyu quoi. mooy euh, boo ko xoolee mooy conséquence yi jot am. affaire justice à chaque fois ñu instrumentaliser justice ba justice mujj régler la question politique gis ngeen événement yi fi am deux mille vingt et un mille vingt mais Sonko dafa mos a wax beneen affaire ci muy deuxième affaire mu ni moom suñ ko attelé ñàkkal ci élection yi ce sera la chaos. Mmh. maintenant le chaos dont on par là actuellement nous en sommes à la dimension symbolique. parce que tey ce qui se passe c'est presque un chaos quoi parce que à vingt quatre heures de l'ouverture de la campagne ñu annulé élection yi xamuloo c'est report c'est annulation ku jégi Sénégal jaxasoo na kon donc tey euh, Sonko euh, am na ndam euh, ci Macky Sall ci li mu ko ne woon boo ma bëggee liquider sa boo ma bëggee rey sa loxo dina ci taq te loxoom taq na ci répp mu ngi ko ne woon su ma bokkul ci élection yi su ngeen ma ko xañee ci sama droit la ce sera le kaw actuellement on est en forme de kaw euh, de chaos nag il faut que euh, tout les démocrates se parce que li président Macky Sall def defu ko rek candidat yi waroon dem élection hein? Euh, mais peuple Sénégal la ko def état du Sénégal la ko def. li xew est-ce que dañ koy teg ci sañ-sañam moom rek. président Macky Sall parce que xam nga wala dafa am ay ay acte ay acte de part et d'autre yu yenn ci kilifa langue politique yi teg ba mu indi lu mel ni waaw d' abord daf koo teg ci euh, sañ-sañam moom la doon wax Saara Ba ndax euh, suñu constitution li mu wax dafa leer dafa ne bu ñu mosee toll fii ci processus électoral. Hmm. lenn rek rek rek rek képp dong kese mooy tax ñu mën a annuler élection mooy kenn ci candidat yi faatu. Hmm. c' est la seule excuse. légal di nekk ñu ci situation yooyu. pour ñu mën a d'abord première chose fu ñu ko doon étendre ba tawi ko ba mu sës ñaari situation moo mën a tax ñu mën a reporter élection dans une république je dis soit mu am benn ce qu'on appelle une loi constitutionnelle mm. wala mu am un référendum loolu rek moo ko mën mais ci sañ-sañu benn nit mm. fût-il le président de la république amul sañ-sañ boobu bu ko defee rek waaw ma nga baax kon bokk mm. euh, loolu la mais deuxième chose nag pour ne pas trop monopoliser la li mu def nii olof Njaay day wax ni lu yëngu lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole. Hmm. waaw daa am lu yëngu nag ci suuf. muy lan ba tax mu taxawee taxawee nii quoi d' abord première chose président ma ki Sall midi la waxoon ni day wax ak askan bi midi. te bëggoon naa sax ci. ñu ñu buñ la joxaatee vidéo bi nga xool ko. waaw ndax du ñàkk nga am loo ci loo ci loo ci gisaale. waaw waaw xam nga yow da ngay jàngat fond yeeg. forme yeeg expression yeeg. yooyu absolument waaw naka nga ko gisee c'est vrai midi. tout à fait heures la ñu mujj. waaw jot tout à fait d'abord d'abord d'abord euh, ci président Babacar dina la ko joxaale. voilà tout à fait donc ci président Macky Sall dans sa prise de parole. Euh, soo dee xool dans ses expressions corporelles. ma nga nii disons-le comme ça euh, nekkul li xale yi naan nekkul. lu ah. le moment it très chargé su ngeen ko xoolee sax def na ay tikki yoo xam ni daanako xamuñu ko woon ci Macky Sall. Euh, mu def nii yooyu. Ah, waaw matt kii wax ji dafa tagu ca kaw. c'était pas fluide noyyi bi niveau noyyi bi maanaam li muy wax ni diis na ko sax moom. Hmm. waaye nag xam nga ñàkk pexe. Euh, dañuy faral di wax pexe la eh d'abord premier chose mm. euh, pourquoi nekkul midi onze heures jusqu'à quatorze heures. Euh, parce que sunu partenaire yi. Mm. tudd nañ leen tuddee noonu sunu partenaires yi euh, d'accord ñu ci lii. ñan ngay woowee partenaires yi. mooy communauté européenne bu neexee nga tuddee ko noonu. maanaam ñëpp ñi nga xam ne Sénégal yi Sénégal dañuy jëflante ak ñoom du point de vue institutionnel relation. diplomatique et cetera et cetera. Mm. waaw euh, loolu day nekk suñu partenaire technique au développement mais fay nekk aussi les investisseurs parce que actuellement ils ont beaucoup de billets Sénégal euh, première chose deuxième chose pour man dama jàpp ni lii lépp dafa am lu ko waral xam nga loolu pour man la moo ko waral. Euh, te soo moytuwul fa nañu jëm. Mm. dama jàpp ni président Macky Sall. soo xefee dafa nar a sulli Ousmane su suul Amadou pour man jàpp naa ni lii lépp lépp lépp trame de fond jigéen Amadou Ba la mu tax Amadou Ba xam nga président Macky Sall soo ko dee jàngat yi ni muy defee politique buy def politique Macky Sall bu lay song daf lay ëffal Macky Sall buy xeex yow du ñëw mukk song la da lay ëffal kooku wàññi sa doole bu baax mu ñëw achever leen ndànk avancé dem bu ngeen ko fàttali ko Karim Wade Khalifa Sall daf leen a ëffal justice. Hmm. ba gars yi def li ñuy def ba pare mu dóor li muy dóor. tey bu ngeen xoolee sonk ba mu ko bëggee jekku du koo ëffal ak taxawu ba Sonko perte ay prime mu jaar fa def ko la mu koy def bii nag pour man hmm. dafa bëgg songu Amadou Ba mais du koy ëffal ak PDS. d'accord ba poids wàññeeku mu doog koo def et donc pour man je crains fort je crains fort que fi ñu toll nii président Macky Sall son problème ce n'est plus Ousmane Sonko ou du moins pour le moment mais son véritable problème c'est peut-être Amadou Ba et que président Macky Sall dem na ba xam ni euh, Amadou Ba peut-être wër na ko ba partout partout. Mm. pouvoir exécutif législatif et cetera. et que suñu xoolee ba ci biir euh, Amadou Ba dafa wax ni moom dafa bëgg a dem élection hmm. sondage yi gars yi di jot joxul Amadou Ba vainqueur est-ce nga hmm. donc léegi lan moo ki mu jox vainqueur mooy Diomaye hmm. sondage yu mu jéggéen na mais Amadou Ba taxaw na ni moom nañ dem élection parce que kon moom am na ci lu mu téye et ça de kon président Macky Sall dem na ba xam ni exemple que Amadou Ba a fini de l'encercler et que moom il faut mu rebuffer wu pour xool peut-être que pouvoir bi dal ci loxo yi keneen ku dul Amadou Ba et peut-être mooy sama folie philosophique bi may def. Hmm. peut-être peut-être on va aller dans une situation dialogue bi ñuy wooteeg yooyu. Hmm. est-ce que président Macky Sall rendrewul compte ne li gën a sedd ci moom. Euh, c'est le retour de Sonko dans le jeu politique que yëf yi tàbbi ci loxoy Sonko peut-être mooy gën sedd ci moom comme tàbbi ci affaire Amadou Ba day jaxasewaat carte gi. Hmm. après on verra avec son dialogue. di dinañ dinañ ñëwaat si si si Amadou Ba mais balaa ñoo sori d'abord euh, Cheikh Oumar euh, avant ñuy